maanaam dal ci teunk ndax man nga ñu ñewatal mbir mi xew fi sa dara ji nak la démé deug deug euh xamna li ngay def sax de amna njabot gi ñu nekk fee ca hmm. ca kër ga di def hmm. waye nak comme yalla da dogal taw hmm. euh, mom bu xasse jog rek euh, ak leeral du du ragal waye manam manam manam dindi tuuma la wala wala wala satal sa der coow li man daanaka xëy na dama jàpp ne cër bu ma yàlla séddale waaye taxuma koo jóg wala boo xewut sama kër xewewut sama kër ndax euh, man euh, damaa féete ndar hmm. waaye nag damaa bokk ci dëkkin bi damaa bokk ci dëkk bi dëkkin woo xam ne ne hmm. euh, dëkk dëkk bokk bokk gu yaatu la ci ci ci ay côté yu wuute sax hmm, ma ma fi daara nag jël jël jël sëtu Sëñ Tuubaa bu mel na man mu may mu may tàggatal gone yi ak di leen jubbanti ak di leen yar moom man nag fa ma nekk ca Ndar moom maanaam yi tarbiya laa fa yor li ma doon ci samay maam. Hmm. bi may ñëw nag tey li ma indi woon Touba mooy maanaam yokkaat dali màggal yi kër gi may màggale ma yokkaat dali. Hmm. bi ma xëyee nag Ndar ñëw ñu ngi ca liggéey booba noona. Hmm. ba waxtu yu tàkkusaan donga daar yu ndaw yi ci kër gi. am am am kenn ci ñoom ku ñëw maanaam bët bi bët bi di toj toj toj toj bu xaw a metti sax ndey. ci gone xam na waaw ci mën a ñëwaatal ci loolu ndax ci bi daa dawoon léegi mais xale bi nga xam ne dañ ko daa gaañ ci bët waaw waaw xale bu ndaw la da ci fukki at ak ñaar ci la war a toll waaw mu ñëw indaale dagg-dagg bu xaw a metti ci kanam gi ma ne ko waa yow lii lu mu doon mu ne ma bàyyi faal yee ma dóor hmm. waaw ma ko bàyyi faal yi loo def ban dóor la mu ne ma defuma dara ma ko ah, loolu de dana xaw a euh, kii ci doomi jàmbur moom nan dem rek ma xool hmm. ba xam lu sabab dóor yeeg yooyu hmm. xëy xëy na nag man bi ma génnee di dem sax mennum man cundum cundum ma maa ànd ak sama benn taalibe waaye xam naa ne hmm. lataaka may àgg ca Baay Faal ya gis naa njaboot gi nekk sama kër di samay maanaam taalibe wala may seen bunt ci seen digganteeg seen Tuubaa waaw ñu topp ma hmm, hmm. léegi mën na leen yem leen foofu bu leen agsi waaye xam naa teewul bi ma agsee bay waxan ne tamit am na benn benn yu fi agsi ci ñoom mën na leen ku baax kii ku ko dóor am kenn ci seen i jëwriñ na ma kenn dóoru ko ma ne ko comme nu mu daggee nii mu ne ma dafa daanu ma ne ko ah dafa daanu waaw kon baax na hmm. léegi bi mu ne ma dafa daanu ma ne ko kon baax na nan dem ma yóbbu la ci clinique bi ñu faj la hmm. léegi bi ma ñëwee nag jaar ak moom sama kër di ko fompal deret ji ak di ko nettoyer pour man koo yóbbu ca clinique ba hmm. mbooloo mu baree bare bari jékki-jékki rek wàcc ci kër gi moom foo foo rek di dégg xeer yeeg yëpp rek moom di dal xeer yi xeer yi ñu ko doon sànni ñu wala xale yi doon sànni xeer man ah, man loolu fi mu toll ci bitti laa génn rek mënuma hmm. caa am ko hmm. leerlu lool waaye nag xëy na ñi ñi ne sama kër moom li leen ci boole ñi ne sama kër hmm. mbooloo moo ñëw songu kër gi te ñoom it xam naa ne sama jëmm ji moom am na lu mu leen jaral donte mën naa am bëri nan wala bëriwun am na lu leen sama jëmm ji jaral moom léegi nag xam naa bi loolu amee tamit ñoom ñi ci nekk sama kër daal di daal di ñëw léegi daal di daal di jàkkaarloog ñee di ñee di nangam nangam bi ma génnee nag ñu ne ma sa waa kër ak Baye Fall yaa ngay am lente léegi nag foofa man génn naa sax bay laajte njabootu Baye Fall yi xëcc leen ñoom na leen kaay leen ñu waxtaan hmm. soo leen ma xamut ma wax leen sama présentation ngeen wax ma seen présentation ñu lijjanti lii moo gën hmm. waaye foofa daal ak digloo akuk dal moom amu fa dara dara dara dara ci loolu daal xam naa ne hmm. loolu de bokk na bokk na ci li ñu wax nag dañ ne yow danga am loo leen wax yaag say taalibe ba waral ja ja ah, ñu réagir man de ci njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara laa bokk waaw loolu loolu tam bëggoon nañ daa ndax daa ne buñ juumu dañ ne doom nga Serigne Mamar Eh, waaw sëñ Amar Fall moom sëñ Baara mooy sama waajur hmm. waaw hmm. waaye sëñ Baara mi ma doyloo tey ak ëllëg de ginnaaw maanaam baayam sëriñ Tuubaa hmm. mat na ma seede sëkk sëkk sëkk ne cofeel gi ma am ci Seex Ibra hmm. doxin woowu sax laay doxee maanaam du ma jàkkaarloog mukk maanaam hmm. maanaam euh, taalibib Seex Ibra di di xemmem baat bu ñaaw wala di ko jëmal ci moom waxuma laak nag ku ne hmm. waxuma laak ku ne tudd di tudd Seex Ibra loola loola loola moom amul jégguta am waxuma waxuma lu ñaaw ci ñoom jëfuma ko samay taalib waxuñu ci lu ñaaw ci ñoom jëfuñu ko jërëjëf Mbacke léegi bi ñu ñëwee ci kër gi tam ñu fekk yàq-yàq yu bari ci néeg yi ci kaw terrasse waaw gi kër gi moom li ma wax ndax man xam naa ne dama dafa am nu ma yàlla bindee. Hmm. samay njaboot ñoo nekk ci yenn yi. Hmm. ma ma toog di seetaan wala may xippi bët wala nangam nangam ndax bi coow li euh, jàllee moom. Hmm. génn naa di xool mbir mi ni muy demee ak di calmeeg nangam nangam. xeer yeeg yëpp rek di jóge fo ne di dem. am na ci ñoo xam ci samay njabooti bopp man. maanaam dan na ma cas maanaam génn ma luy niroog foofu yëpp sax hmm. maanaam man fi ma dugal sax xaw ma ko hmm. waaye ginnaaw bi loolu amee tamit ba ma kiyaat man pour ma xàmmee kër gi sax moom jafe na lool <laughs> waaw dañ fay fekk yàq-yàq yu bari ci am na néeg bu fekk yàq ak itam ci kaw gi ñu fekk fa ay dara yu tax ak ne fi bàyyi faari ñu doon laaj ba xam ndax loolu naka noonu la demee hmm. ne ne ne leen façon gaañ goo xam ne ne Euh, metti na lool waaye nag xëy na lépp hmm. moom hmm. moom dañ koy delloo ci ak taalibe ndax bu hmm. fekkente ne ndigal la tamit lu bàyyi ko ci eh, ki moom dëkk bi ah euh, dañ koy dañ koy dañ koy muñ rek te xam ne ne ndigal moom moo féete kaw lépp waaye nag bu dee bu dee bu ak sago rek moom ah, ci dëkk bi lan dëkk waaw bu dee coobare la rek ndax jot ngaa jot sëñ bi sëriñ bi leera ko ndax fi ne nii ñuy wax ak yow ji coow laa ba léegi ñuy taal ay tonok ah. yu ni bare bare jamono ji mi ngi am fii ci kaw télé bi moom kay yabal naa ay nit sax ngir ñaan nit ñi ak dal ak ki waaye nag am na si xam dañoo fekke feey waaw waaw te it am na foo xam ne ni nit ñi hmm. buñ fa tolloo waxam ñoom sax day xaw a jafe lool waaye yabal naa mbooloo mu takku sax ngir ñu dimbali ñu eh, dalal nit ñi ndax lépp tamit ci yoonu murid rek day delluwaat daal te xëy na lu ca rafet daal ñun moonu gënal eh, lu dañ koy dañ koy muñ rek te xam ne ne hmm. ndigal moom moo féete kaw lépp waaye nag bu dee bu ak sago rek moom hmm. waaw ci dëkk bi lan dëkk waaw bu coba coobare la rek. ndax jot ngaa jot sëñ bi sëriñ bi leeral ko ndax fi mu ne wax ak yow jamono ji ngi ba ñuy taal ay yu ni bare bare ji mi ngi am fii ci kaw télé bi moom kay yabal naa ay nit sax ñu ñaan nit ñi ak dal ak kii waaye nag am na si ñoo xam dañoo fekkee waaw waaw waaw na ni nit ñi buñ fa tolloo wax ak ñoom sax day xaw a lool waaye yabal naa mbooloo mu takku sax ñu ñu dalal nit ñi ndax ci yoonu rek day lu ci rafet ñun gënal lu ñaaw jërëjëf Balla kon na jërëjëf Mbacke jazaakumullah adat jinaana lana ilah wulinal jinaana sukuuru rabbina adat jinaana lana ilah duxulinal jinaana adama rabbuna bina adurina wa kaana liddahra bima yasuruna radiya anillahu والمحتار لذنبي يدوم ما أفتار رضي عني الله والمحتار لذنبي يدوم ما أحتار رفعت لله وللرسول كليتي فحست خير رسول مدى لي الباقي الكريم خيرا ولسوى أمري السار ضيق الزمان والعدا والقدر يسوع بخير حمر القرار آتاني الله آتاني الله آتاني الله آتاني الله آتاني الله والنعم الموتي بسرمها كل بلا وحدي آتاني الله ونعم الموتي بسرمحا كل بلا وقت نبى لغير الله نعم الباقي مدرتي غير ذا باقي ذبا هداية ذبا هداية ذبا هداية ذبا